ku def lu baax. sa baaraam ñu dem ci combat après ñëwaat. cartouche ñu ngi koy nuyu di ziar di nuyu waa magu Thiès bi yëpp ndeysaan xam naa ni gars yi buñ la gisee dañuy kontaan ndax euh, sa nekkin foofa rafetoon na fekk naa la fa alors ñu ngi ci biir combat bi Michou ak Boy Yène Boy ñuul Michou Mbourou mooy moo tax Alaaji Malick ma détaillé ko waaw mburu mi daa ñor mburu bu ñoree <laughs> day xong day <laughs> mu ngemboo ngemb Lagos nag di su mburu ak boy ak boy yeen ñi ngi lew too waaye sama gars yi taxaw suñu kanam day waaye xaaral rek léegi xaaral léegi affaire bi léegi léegi léegi laay réglé problème bi léegi laay réglé ko chauffeur la technicien la booy mi su mburu ñu dua lagi malik, bi di leewaatoo Alaaji malik way man de gis seenatuma leen eh waay way yi waay di leewtoo kurpañ dara bu toog amagul booy mi su mburu booy mi su mburu ñu ci dig geew bi ñi ngi lewtoo lewtoo bi dip na lol ñu ngi ci angal ba kurpañ dalagul amagul mi su mburu ñoom ñaar. boo yeet muy sumburu ña tekk taxaw jonn combat xale day safta gaaw am cas ak casasas mbër nga ñu wari dóor fab dóor fab loolu moo jeexal lamb mbër mu waaw waaw waaw sama classe gee ko moom wallaay di wuti pexe mais combat bu ndaw daa war a saf di lay ay gone bu ñu dajee si duduk ndaw gi dafa wara talalu la yàlla ji malik wane sa ñaan ci xabal galgal euh mbeur mu ndaw loolu la daan def fukk ci jiburu boo yeen mi jiburu boo boyen loxo yaa ngi ca kaw alaaji malik waaw ba legi dal boo na lew waaw en arrière arbitre bi wowat na len ci digu bi digg géew bi moo leen di tax combat bi leer arbitre suuf la war naa laaj Malick yi du fekk kenn déedéet boo yéen Michou Mbourou yéen de defe naa mu ci yoonu Thiès alaaji Malick waaw waaw Michou Mbourou moom foo fekk ko fa <laughs> ñu ngi jàppal jàppal ba tey mburu ñaar ba léegi rek ca Leewtoo ba waaw waaw aj loxo yi ca kaw aj amagul kurpañ dalagul Miss Mbourou déclenché na waaye taxawaat na Miss daa mel ni dafa bëgg a jeexal combat bi Miss Mbourou booy yeen booy yeen arrière na moom day arrière rek di defaru booy yéen Miss Mburu xeex nañu jàppante nañu daw nañu jàppante runkum daje attention booy yéen booy yéen Miss Mburu ak Miss Mburu ña nga ca suuf ña suuf ña dafa mel ni booy yéen booy yéen lump na Miss Mburu mel ni moo daan de booy yéen lump na Miss Mburu lem na ko lem na mbuus bëre laa <laughs> ilaaha illallah booy yéen lem na mbuusu mburu booy yéen daan mburu